donc li ma ci doon wax rek avant may jox kàddu gi Aïda Mbodj pour mu tëj ci loolu euh, mu wax ci wàllu euh, xalifa bi ak médiation bi ñun dañu waxoon ci suñu kayit nii ñu ngi laaj président Macky ak gouvernement du Sénégal mu ubbi ay l'enquête ba lépp lu ci am ci ñaawteef ñu xam ku ko def nu ñu ko defee ak ci yan anam lañ lañ ko def te képp ku ñu war a teg daan ñu teg la daan yi war ci yow moom itam mu nanguloon ko xalifa bi jëloon engagement di dina ko def te son ministre bi muy def mémorandum bi gouvernement bi génnee mu waxati ni dana ko def ñu ni kon nañu leen seetaan ba xam dinañ ko defam déet au moins au niveau national waaye gis nañu ni boobu ba léegi amul benn jéego boo xam ne gouvernement Sénégal yëkkati na ko donc askan wi képp ku ñuy xool di ñu seet di nga xam ne li ñu waxoon ñun ci wut jàmm ak bëgg bàyyi gouvernement bi mu def li nga xam ne moom la diggee woon ku bàyyi un an at di xaar di seetlu bàyyi nga li nga mën a bàyyi délai bu raisonnable la waaye gis nañu ni war na li mu waxoon sëriñ bi weddi na kàddoom ñun nag li nga xam ni tàmbali woon nañ ko ci liggéey bi maanaam képp ku def ñaawteef vidéo yi photo yi image yi ak témoignage yi nga xam ni jël nañ ko dem wax ak famille yi ñu wax ñu ni ñu dundee mbir mi dossier yooyu yëpp ñoo ngi koy constitué euh, euh, commission judiciaire bi nga xam ne taxawaloon nañ ko dana ci lëkkaloo ak avocat yi waaye itam ak ñoom Amnesty International ak Ligue sénégalaise des droits de l'homme ak bépp kuréel boo xam ni ñoom politique waaye bëgg nañu Euh, mbir mi leer bëgg nañu justice def ci liggéeyam danañ leen jébbal li nga xam ne lépp loolu lañu ñu yor pour ñu liggéey ci ensemble su ko defee ñun itam ñu jël yooyu dossier continuer ci au niveau international li ñu waxoon waxoon nañ leen ni am na ay kuréelu sénégalais yu nekk sax ci jaspora bi Belgique la ñu nekkoon jamono yooyu daaw jëloon engagement ni ñoom dinañu saisir sax ay CPI ak yooyu ñu ne leen ñoom itam danañ leen kattanal ci loolu pour ñu mën a def def liggéey boobu donc loolu liggéey la boo xam ne dinañ ci gën a sóobu pour mën cee man cee def li nga xam ne lii mooy engagement bi ñu ci jëloon.